élection législative 2022 sur Xibar 24 TV leen doot leen umpati mbokk yi fii si département de Mbacké di ngeen si ànd ak ñun si ay direct ay reportage lépp lu ngeen itteewoo topp mbooleem candidat mbooleem coalition lu si mel ni ak Sénégal coalition des serviteurs coalition Natangué Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu coalition benn Bokk Yaakaar coalition bunt bi coalition Bokk Gis Gis Liggéey ah mbokk yi jàpp leen bis ni tey di ngeen ànd ak ñun ci lépp lu ngeen ittiwoo comme information bu wóor te wér mu doon ay direct wala ay reportage ay convoi ànd ak mbooleem état major si biir dëkk bi fépp fu mënti nekk lépp loo xamante ni moo fa tukkeekoo di ngeen ko am si xibaar 24 TV ak équipe bu xarañ jóg taxaw tem ngir nag dara dootu leen ëmpati ci les élections ñeel bokk moomeel yi atum 2022. tante madame Mbaye ñun nag président de la république. comme que madame Mbaye da koo bëgg ba bëggloo ñu ko dañoo bëgg mu gersu ko comme que da koo bëgg laalax de ba bëggloo ñu ko ñun dañoo bëgg mu gersu ko lu muy sumb sumb ko ci borom këram nag moo ma ci gën a marqué sax man man madame Mbaye marqué wu ma de mais monsieur Mbaye moom ma marqué ci président de la république bu toogee ci jataay sax dégg ñu ne Macky Sall nangam bu ñëwee du añ mais bu toogee ci jataay dégg ñu ku wax Macky Sall lu baax bu ñëwee ku mu dajal da lay may xaalis loolu bëgg mënu koo weesu kon nit ku la bëggee noonu fonkee la noonu xiirtal njabootam ci yow xiirtal soxnaam ci yow jël dooleem di ko def ci yow lenn rek nga ko mën a fayee mu nga gestu ko faale ko ña nga fa amaku néew nga wax leen ñu jox ko cër cër ba mu moom ñu jox ko. nuyu ñi fi teew ñëpp di leen jaajëfal di baalu àq maa ngi tudd Mati Jaxate maa directrice campagne madame Mbaye waa tey ñu woowoon mbooloo mi ndax situation bi ni mu demee situation bi mooy li ci wëcc wax duma ko ci waxaat. waaye yéen yéen a constat gisal seen bopp taawu groupement li lépp ay groupement la man Mati Jaxate depuis départ 2009 ba tey ño maa ngi ci ñu ak ñu bari ñu fi àndal bi ñu ñëwee madame mbay ñu gis ni madame mbay doxalam neex ñu ñu aar bootu ci ginnaawam mu doxal doxalin bu rafet ñu naw ko mu mu nawloo ñu ñu ànd ak moom di liggéey ku ànd ak góor àndum nawlante kon bu ñu wootee ay financement yéen a gis groupement yi lii ëpp na 200 groupement ci këram te jigéen ñii ñoo ko indil seen bopp ñu ngi nii ñoo indi seen bopp seen ay groupement ci kër kon bu ñuy def financement jox ko ci 5 groupement nga xam ne mel na man donc am naa 5 groupement kii am na 5 am na 5 c'est pas normal loolu la ñuy loolu la ñuy dénoncé tey di wax président Macky Sall ñun duñ ne baax na ne bon na. ñu ngi ci ginnaawam tey ba suba ndax man ñu ngi ci ginnaaw madame ma madame Mbaye ngi ci ginnaawam. waaye nañu gees suñuy dem audience dañuy toog rek gis photo yi ñuy statut dem nañ audience ba ñëw bu ñuy appui tabaski wala korité dañuy toog rek ku nekk naan appui nañu nii enveloppe yaa ngi ñëw xaalis yaa ngi ñëw muy romb madame Mbaye ak njabootam bu ñuy bu ñu màggal Touba ñëwee ñuy def seen i Wave ak seen i dañuy toog rek nit ñi di ko wane ñu ba madame Mbaye ak njabootam ñuy laaj lool lu tax ñun pourquoi ça la ñuy laaj lu tax. lu tax ñu ñuy de ñu ñuy ñu ñuy ñu ñuy ginnaawal te madame Mbaye li mu yor dooley boppam ñaanawuñu ko waaye nag nit boo koy liggéeyal jaajëf day duyu day yokku ngóora a da koo war a gestu da koo war di sóoraale comme ni ko wacci wax laax bi buñ dañu cee war a laaxaale wal laax bi dok buñ ñu ci laaxaale wu rek laax bi day dok ndax ñun bañu ñu ci dara dara lañ ci dut bañ luñ ci bëgg rek ñu def ko ñoom luñ ci wàq rek ñu suul ko ndaxte nga gis nga jigéen ñi lii lépp yéen a ko constate mag la neexee ngeen fëyate ngeen wañ lépp ay groupement la ak i ak i lool bu ñu ëppee la bu ñu ëppee taxawaay bu ñu ëppee taxawaay ñun bu ñu ëppee taxawaay nañ teg table seen ay groupement lii ku ñemee ku ñemewu doo def lii ñun bu ñemewutoon dañuy ñëw rek wax dem ne am nañ ay groupement ba ko ca biir léegi lii moom ku ab ragal du def lii lii du ne fànn kenn du ko jeex lii biddi biddiwu bëccëg la amu amul naatable ok ñun ñii madame Mbaye dafa liggéey ba am li mu war a am làqu ci ginnaaw kenn pour falo xaaru ba nit mer mu xaaru ba nit ñi mer mu wàcc du njaajut du def defut di koy lëg fu ne mu def coyti coyti dafa jëm dafa dawal dafa dawal boppam jaar ci yoon wi ba am li mu war a am defut làqatu ci kii falu kooko di waaja booba mandat jeex mu bëgg a làqatu feneen bëgg a faluwaat loolu madame bay defu ko te du ko mus koo def madame bay li mu am doole boppam ak ñaq boppam moo ko may politique dafa ñëw nag daanu ci kawam moom politique enrichir wu ko de moom politique da ko da ko da ko da ko da ko da dafa dundal da koo dundal dundawut politique ndax ñun ñii ñëpp ku ci nekk mi ngi lay jàppale dila la assister di la di la di li nga ak moom mu di ko def ci doole boppam loolu nag lañ bëgg président Macky Sall xam ko te jàppale ko te jàpp ndax ñun nag bëgg nañ ko te dootuñu ko bañ ndax nee nañ baax na ba pare dootuñu ko wax bon ñun bi ñuy ànd ak madame Mbaye di liggéeyal Macky Sall boobu tey ñii ñuy sédd tey boobu ñu ngi woon PDS yaa ngi dégg nañ wax wax ji. ñu ngi woon PDS ñun du ñu njëkk ci affaire yi ba pare ñu ñuy gën a madame Mbaye sans moom Macky du am dara Mbàkke sans moom du am dara Mbàkke ñun ba APR de APR la ñu nekkoon fii kon nag ñun duñ nangu ñuy ñëw di jël kenn di ko teg suñu kaw di séddale di ñu xañ madame Mbaye dafa sonn ci parti bi sonn ci euh, jigéenu Mbàkke guddee bëccëg suba ak ngoon yaa ngi dégg li di liggéey di dem ci xoolu dara nag ñun mooy ñooy am lu ñu di mais moom amul dara lu ko naqadi ndax kenn mënu koo jaay lu ko saf mais nag ñun ñoo sonn ci gannaawal biñ koy gannaawal ñun dootuñu ko defati sans sans madame Mbaye mii nag duñ gagné la preuve élection yi passé sans moom. konoon kenn du gañ a Mbàkke fii man xam naa ci dara dama doon dem ci terrain bi ñu ne ma ñun su du toon madame Mbaye duñ sànnil Macky Sall du ngeen gañe kon man xam naa ci dara man kon nag damaa bëgg président Macky Sall xam ne sans madame Mbaye Mbàkke du fi am dara bu yeboo nag na xoolaat boppam te xoolaat li muy def ndax ñi ko ñi ko ji ñi jiital nii dañ koy waxuñu ko dëgg waxuñu ko li nee waxuñu ko li nekk de madame Mbaye moo moom Mbàkke ku mu neex ku mu waaw ah, ñu ngi ci euh, mhm. mhm. taxawaay ngeen ci bi ñu ngi ci amoon démb ak barki démb moom lañ ciy am ñun ñun dara duñu tax a dellu gannaaw ci président ci madame Mbaye mi parce que madame Mbaye ñun bu ñu bëggee recréer sax moom moo naan ñun man Macky Sall laa am moom laay noyyee moom laa bëgg moom laa gis mooy sama mentor moom lay wax chaque jour. ñun suñu man mii man mii tey jii dafa dal sama kaw parce que man damaa gisoon sama bopp. ndax man ndaw laa sant damaa gisoon sama bopp mais damaa ñëw mu dal sama kaw ñun buñ demee bay reculer moom mooy dal suñu kaw ne ñun maki man Macky Sall laa am su ngeen ma bëggee jàppale leen Macky Sall kon nag madame Mbaye mii ñun Macky Sall ñun buñ koy jàppale ba tey madame Mbaye moo tax ñun madame Mbaye lañ am nañu fonkal madame Mbaye ndax ñun sonn nañ ci ginnaawal biñ koy ginnaawal ñun mënuñoo liggéey liggéey bu rëy bii ñu liggéey Mbàkke ba Mat Macky Sall fallu ñu koy liggéey ba tey ji ma Macky Sall deful benn effort pour euh, am fu mu teg madame Mbaye ñunu metti nañu nañu xoolaat boppam bu baax bu bëggee gañe Mbàkke na na teg madame Mbaye place am bi mu méritoo bu fekkee bëgg naa gañe Mbàkke na teg madame Mbaye place bi mu méritoo waaw. dégg na sa tur ak sa sant man la Aram Sène ànd jàppale madame Mbaye ba mu jeex tàkk comme ni ko yëpp waxee rek moom laa koy waxee ñun madame Mbaye moom la ñu am. dañuy nangu kenn ko gannaawal sonn na ci parti bi bëgg na Macky Sall man mi première ci man damaa koy wax Macky yow bàyyil mi mun ma aram seen ko ma bëgg bëgg ma ci Macky Sall ma bañ bañ ma ci Macky Sall Macky Sall laa bëgg li kii wax laa laay dëggalal moom mi kii fi jógee nii léegi sax nu mu tudd sax nday koddu mi wax na dëgg ñu dañoo découragé carrément mais boo dee découragé ma mbay ne du ci dal te ñun moom la ñu am mooy suñu mentor saa moom nag Mbàkke du ñu dem fenn. li kii wax moom mooy dëgg ndax nit ki mënu laa bëgg topp ci yow daw guddi ci yow ba ceeg Macky Sall kenn kenn du ko tudd ci kanamu madame Mbaye barke Nabil Moustapha man xam naa ci dara man mi moog borom këram su may kaas na ko yow dana la Macky Sall defal daan ma aram seen dañ topp rek nit ñi dañoo doy muy bëgg a koo topp di sonn ci moom guddi sonn ci moom bëccëg te du la defal dara madame Mbaye dafa sonn tabaski mooy jënd ay xaram di joxe moo joxe xaalisam moo joxe sobleem moo jox la pomme de terre am suukar du koor yi dara jeexul ah financement yi jigéen ñi am ci Mbàkke rek maram bay ci poste bi la jigéen ñi xam nañ ci dara yaa ngi may dégg benn jigéen taxawaalu ndax maram maram bay mi kon nag nit ki nag buy sonn ci yow di la jàppale ngir bëgg sa paas dox da ngaa war a sonn ci moom képp kuñ fi taaj ci Mbàkke gi maram bay la ëpp personnalité moo la ëpp garaat moo la ëpp mbooloo man maa wax lii kon nag kenn mënu koo gannaawal président dañoo bëgg nga jël mag maram bay mii yëkkatuñu ko ca kaw a kaw moom la ñu bëgg ndax xam na poids te am na gannaaw macha allah am na mbooloom ñun na bu ñu xasee ba mer ah du baax de gestu baata jigéen ñi ndax sonn nañu wasalaam. ak di leen balu àq bal naa ñëpp mën a ay sa sekk munu ma cee bañ a wax ndax lii dafa métti torop te dafa yàgg madame Mbaye Mbàkke ba Mbàkke daj moo fiy joxe sukkaru koor moo fiy joxe tabaski soble moo fiy joxe màggal ceeb di jël loxoom di ko jox ci nit ñi. di jël alalam di ko def ci jaami yàlla yi ndax Macky Sall kon lu fi dugg war nañ balaa dem fenn ñu woo ko mu fekke ko xam nu mu demee ñu jox ko lam ca moom nu ñuy def ñu doog koo def waaye ñun ñi ànd ak moom nga xam ne ba ñu dalee jóg ak moom yàgg na ñun bañu dalee ànd ak Macky Sall boobu ba léegi xale yi fi juddu woon sax am nañ jabar kon Macky Sall war naa xam kan mooy madame Mbaye ñun ñooy xorom ci cin buñ ñu fàttee du neex. Macky Sall na gestuwaat madame Mbaye ñun loolu moo ñu ñor bu ko gestoo ba xam mooy kan rek danañ ànd ak moom ci jàmm wasalaam loolu rek laa amoon ci lu may wax. rahim maa ngi nuyu ñëpp ñi fi ndaje man daal wax bi ji duma ko gàttal ko Konaté di wax ne ñun moom li ma yàgg di wax man moom xawuma Macky Sall wax dëgg yàllaam te ñun ñi fi nekk ñëpp xamuñu Macky Sall ñun madame Mbaye mii lañ xam ñun 2009 ba léegi te dekkal ngor. ñu ngi ànd ak madame Mbaye ñuy def ay té débat di def ay lee lu ne ñu ngi koy def madame Mbaye di ko financé wax dëgg yàlla madame Mbaye ba mu dalee di jàppale doomu aadama yi sax wax dëgg ba politique amul dëgg rek moo neex yàlla ñun dem nañ fenn jaalis am ku ko xëcc na ko na xàmmee nga ma mun na ko déedéet xàmmee ma la de mun na ko yaa ñu doon fekk ca pour bay ñuy jaay mburu nga ñuy jox di ñu dimbale ànd nañ fi di dem Taïf Taïf laa la wax de kere bi ñuy ànd def naa ma ci tey fuñ jaar fépp foofu yëpp madame Mbaye financé na fa ñëpp la financé li wër tayif diggante boobu yëpp madame Mbaye joxe na ko madame Mbaye ba mu dalee di dimbale doomu aadama yi Mbacke Serigne Fallou Mbacke boobu xamuñ politique xamuñ politique sama ànd ak moom fanweeri at la te madame Mbaye ba mu duggee ci politique ma tugul fanweeri at ñun xam nga kuñ xam ndaw si lañ xam ku ko jàpp ñu jàppale ku ko bàyyi ñu bàyyi la waaw ku ko jàpp ñu jàppale ku ko bàyyi ñu bàyyi la gis nga élection yi ñu doon wax barke borom Touba da cee def loxoom bam saf sapp ñu def ci suñu loxo bam saf sàpp wóor na yàlla ak yonent bi Serigne Touba keroog bi mu ñuy woo fii ci këram ne Macky nee na woote na nee na ñu jàpp ci élection yi ñun ñëpp ñu ngi toog ñun ñi nekk nga xam ne ñoo nekk leader yi boot nit ñi kenn ku nekk 30 000 la yëkkati xaalis jox la ko wooyal say nit barke Serigne Touba wooyal leen seen nit jël téléphone am woo nit ñi. jël téléphone am di woo nit ñi kenn ku nekk mu yëkkati 30000 jox la ñetti billets 2000 francs kenn ku nekk mu ne la wool say nit jël téléphone am di woote ñu dugg dëkk bi di woote di woo suñuy nit am na loo xam ne sax dafay xaju ne naa la jox preuve leer ñoo xam ne dañoo dem na yow Astou Konaté yow fa nga madame Mbaye jëm fa lañ jëm ma ne ko kon fa madame Mbaye jëm mooy te Macky Sall la wooteel leen Macky Sall ndax madame Mbaye loolu laa amoon lu ma ciy wax. di ko tënk rek ci benn kàddu bi ci njëkk mooy. président su bëggee dooleel jigéenu Mbàkke gii nii ñu nekk nañu dooleelal madame Mbaye parce que dooleel madame Mbaye mooy dooleel jigéenu Mbàkke ki nga xamante nii ne ba mu daree investir ci jigéenu Mbàkke amagul ndomal tànk ci président fayegookul ay millions mu jël ay millions teg ko ci banque yi la preuve banque crédit mutuel ñun suñu groupement groupement bokk jom cinquante personnes la ñun keroog ba ñuy am financement crédit mutuel kenn amu ci compte moo moo jël xaalisam déposé ko kenn ku ci nekk mu financé la quinze mille quinze mille nga am compte bancaire am financement di liggéey benn ci man sama place laa jóge ñëw fii à cause de toi yow ku la dooleel mooy dooleel na jigéenu Mbàkke yow ku la financé mooy financé na jigéenu Mbàkke yow ku jox ndombal tànk mooy jox na ndombal tànk jigéenu Mbàkke te ku bëgg am jigéenu Mbàkke bu yeboo nga jàpp madame Mbaye ngir nga mën a am Mbàkke ngir di gañ mbake Mbàkke sans madame Mbaye président bu bëgg a am Mbàkke Bawol gii doo ko am département bi yëpp nag très bien pardon maa waaw maa ngi jégalu bu baax élection yii nii jàll fii ku fi yor groupement wala nga yor fi mbootaay da ngay toog naan ku may voteel ñu ne le président Macky Sall ndax lan madame Mbaye taayiwul benn yoon ci Macky Sall madame Mbaye plalisewul benn yoon ci Macky Sall madame Mbaye découragé wul benn yoon ci Macky ci ci Macky Sall moo tax ñun jigéenu Mbacké du ñu mën a découragé ci Macky Sall képp ku fi mën a taxaw tamit pour Macky Sall danañ la dooleel à cause de madame parce que bëgg na ko jox na ko loxoom deltuwul ginnaaw benn yoon kon président de la république du Sénégal ñu ngi lay ñaan mooy nga dooleel ñu suñu yaay ji nga xamante ne moo dooleel jigéen ñi di leen jox ay financement di leen jox ñuy liggéey di leen jàppale ci seen biir kër yi di jàppale tamit ci seen néegu sëy yi di loo xamante ne nii ne peut-être kenn conseillé wu la ko di la dooleel di la jox ceeb di la jox suukar di la dooleel dépense événement di am mu woo sa kër tam xarit di ñëw muy rey ay nag di la ko duweel yàpp ba mu fees ngay dem marché di ko yokkee sa dépense à cause de toi kon président gëstuñu suñu yaay ji ngir mu dooleel jigéenu Mbacké dolli ci lu mu ko dooleeloon otol na ñëpp liggéey na kenn toogatu ci taatu garab bi à cause de madame Mbaye jaaraama yaay booy. mën na soxna Dial Thiam Mbacké Paleen. yàgg ak madame Mbaye lool nag man ca dekkal ngor go ba léegi maa ngi ci maa ngi madame mboolem ku nekk ci parti bi rek fi ma fekk maa ngi madame Mbaye mii madame Mbaye nag alalam la da jël def ci parti bi waaye li mu li mu li muy def ci ci parti bi parti bi da ko cee fekk mu di ko def waaye alalam lay lay lay jëfandikoo di di di parti bi waaye parti bi defalu ko loo xamante ne moom lañuy di jox ndax madame dafa yàgg sonn. ndax ci dekkal ngor la ñu fekk ca ci parti bi ak siisaloo ak Baye Maguette Jaxate ak Baye Mor Ndiaye ñun ñëpp ñu nekk ci ci parti bi muy jël alalam gaasuwaalam lépp di ko def ci oto bi dina yóbbu fu dem moom moo la yóbbu yaa ngi dégg ku am dëj mooy mooy ñëw ku am ngénte mooy ñëw bëgg ñu tenir ñu yërëm ñu kon nag bu ko Macky Sall di jàppee xam na ne na jàpp di di su ko bàyyee tamit bàyyi na di di ñun nag moom mii lañ am amuñu kenn ku dul moom mii ku nu ko jàppal ñu sant yàlla ndax alalam jëpp jeex na alay doomam jëpp jeex na ndax parti bi na gestu madame Mbaye mii te xam ne mbooleem ku toog fi yëpp madame Mbaye mii moo a toog ndax ci une heure dong lañ déglu affaire bi te kër gaa ngi fees dell tam na ñoo xam ne ñi ngi ñëw kon nag nañu jàppal di madame Mbaye mii bu ko jàppee ñu jàpp ko bu ko jàpp tamit ñun suñu yoon nekk ñun moom ñun ñoo ñun daw xeex bi xeex bi ñun ñoo koy daw madame Mbaye nee na wax leen ba sonn nañ bañ ma ne ko ñun dañ ngiy def lépp ndax dañoo sonn mënuñu lu ñëw ci dëkk bi ñu lekk ko te kenn di ëppale ko fi am di di mbooloo kenn ëppale ko fi mbooloo mun ta dem Sandior moo yor mbooloo mi barke El Hadj Fallou Mbacké moo yor mbooloo mi Macky Sall na xool madame Mbaye mii nag xool ko ñaari bët na ko ne jàkk ñi muy jox nit ñi ca ca Ablaye Wade lañ nekkoon ñi koy jënd ci Ablaye Wade lañ nekkoon te moom boobaak léegi ci dekkoon ngor ba léegi mi ngi fii te ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko jënd ci Ablaye Wade lañ nekkoon waaw ci Ablaye Wade lañ nekkoon te madame Mbaye ba ba ko Cissé Lo indee ci parti bi ba léegi alalam fekkewu ko alalam fekkewu ko waaw Cissé na nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu wér ak jàmm xam ne madame Mbaye mi moo ñu ko feti tegal ci parti bi te gaynde gi Cissé Lo doon ci Macky Sall nag noonu la noonu la madame Mbaye doone ci ci ci Macky Sall noonu la doonee di di gaynde nag ci parti bi ni Cissé Lo doonee di gaynde ci parti bi noonu la madame Mbaye doonee di gaynde ci parti bi na ko leer. madame Mbaye mi ñu jàppale Macky Sall jàppaleel madame Mbaye madame Mbaye dawul daayul madame Mbaye a ngi nekk sa ginnaaw di jël doole di di la ci defal. xaarul kenn financé woo ko dara te waane mi ngi jël alalam di di di ci yow madame Mbaye bëgg nag jigéeni Mbàkke jàppale jigéeni Mbàkke jigéeni Mbàkke jooyu ñu dara Macky Sall jigéeni Mbàkke jooyu ñu dara ndax madame Mbaye kon nag jàppaleen madame Mbaye ñii di daw sa ginnaaw barki démb dong lañ te su Ablaye Wade taxawoon ñu daw nag financement bi sedd ci madame Mbaye soo ko deful nag élection yii ñu jub da ci gis sa bopp dara doo ko am ankay ankay ndax dañoo bëgg ñu jàppale la dañoo bëgg mu jàppale la ankay na la jàppale na la jàppale dooleel la ndax am kenn ku di yow jigéeni Mbàkke yëpp yow la ñu àndal élection législative 2022 sur Xibar 24 TV leen doot leen umpati mbokk yi fii si département de Mbacké di ngeen si ànd ak ñun si ay direct ay reportage lépp lu ngeen itteewoo topp mboolem candidat mbooleem coalition lu si mel ni ak Sénégal coalition des serviteurs coalition Natangué askan wi coalition Yewwi askan wi ak wallu coalition benn Bokk Yaakaar coalition bunt bi coalition Bokk Gis Gis Liggéey ah mbokk yi jàpp leen bis tey di ngeen ànd ak ñun ci lépp lu ngeen ittiwoo comme information bu wóor te wér mu doon ay direct wala ay reportage ay convoi ànd ak mbooleem état major ci biir dëkk bi fépp fu mënti nekk lépp loo xamante ni moo fa tukkeekoo ko ngeen ko am ci xibaar 24 TV ak équipe bu xarañ jóg taxaw tem ngir nag dara dootu leen umpati ci les élections ñeel bokk moomeel yi atum 2022